bokk ci élection yi waaye am na boo xam ne liste boo xam ni xam ngeen ni maa ko jiite liste wàllu mooy liste soppi ak luñ ci mën a yokk konte nag maa ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ni gisu leen ma diir bu yàgg te taxul ngeen dem fenn taxul ngeen wax dara waaye loolu kooku mooy militant PDS mooy militant ou militante parce que dañu nekk ñoo xam ne lañu xam ne ñu bëgg ak circonstance bi mu mën a xam nañu li ñu bëgg te itam xam nañu ma bu baax xamee boo xam ni bu ñu ma gisulee it war na danañu ni Abdoulaye le président ci suñu liggéey la nekk loolu ci seen liggéey la nekkoon waaye nag comme léegi élection yi ñëw na ba pare campagne bi ñu ngi koy tëj tey si guddi à minuit léegi laa egsi ci jamono bi ci élection dafa euh, compliqué ndax parti yaa ngi ci am na ñoo xam ni amuñu parti am na ñoo xam ni parti yu ànd ñu nag ànd nañu sax ak parti pour def le front Wallu Sénégal waaye tamit ñépp xam na ni maa jiite liste boobu kon nag mi ngi meloon mi ngi mel na que listu PDS te noonu ngeen ko war a jàppe voté liste boobu comme listu PDS pour mu gagner dinaa leen baalu àq nag ndax euh, tardement bi waaye à la daal ma ne fii laa koy bàyyi yëpp pour ñëw ndax élection yi waxtaan ak yéen tuuti ma di leen gërëm yéen ñi nga xam ni malgré tout débrouillé ngeen ba ñëw xaar ma ci kër gi fii ci corniche euh, ñi ci ñu nga point e yéen ma di leen bokk di leen baalu baalu wax politique moom amatul dara lu ma leen ci jàngal xam ngeen ni metti na mën nga ci am lu neex mën nga ci am lu naqari waaye yàlla dimbale nga xamee ni li nu ci am kenn amu ko li nu am ci politique Sénégal kenn amu kon nag am lu mu mën a toll kontaan nañu si ñu ngi ciy gërëm yàlla suñu borom ma bëggoon a ci occasion bi wax e, ji lu mu néew néew ma wax ci sama wax sama wax jooju mooy ma di leen ñaan yéen ñi ngeen xam ne dangeen meroon ba dem ci beneen parti wala beneen coalition na teg lépp ci ngeen dellu si ci seen parti bi yéen ñi nga xam ni meroon ngeen waaye demuleen waaye woneet tu leen seen ndaxalaf ci parti bi ndax da ngeen naan ñeen ñii nañ naan waaw borom parti bi ko jiitu gisuñu ko léegi maa wax naa leen lu tax ma tar ma yàlla maa koy gërëm ndax la ma mënoon la ma daan jóge fii ba tey mën naa ko kon la nag ñaan yàlla sunu borom mu dimbalelu ba élection député yi nu gañe ko nu ëppale ci parce que assemblée ku fa ëpp rek yaay pouvoir yaay wote loi yi gouvernement bi di ko doxal foofu am am nañ ci yaakaar lool kon nag fekkee ne yéen ñëpp dégg ngeen seen ma wax sama wax ku meroon nga meri ba lii wéy nga ñëw ñu toog waxtaan balaa booba sax boo ñëwee ma recevoir ak koo mën a doon ci parti bi ak loo amoon ci problème ak parti boo bëggee ma waxtaan ci ak yow euh, nga woo sama état major moo Mamadou Ndiaye moo di joué suma rôle directeur de cabinet su ko defee ma recevoir la nga ñëw ñu waxtaan nga wax ma seen xalaat li baax ci mbir mi ak li ci bon yëpp waaye bu amee loo xam ne lii nag dafa jafe waaw ñu sàmm ko ba ba ba beneen ba yii passé maanaam ba ñu wote député mu des nag wote président de la république man dootuma nekk candidat président de la république bëggatuma sax même bu ma ko yàlla ma am capacité ma am capacité bëggatuma nekk président de la République lu ma doon def ci titre président de la République yaakaar naa ne def naa ko Sénégal yi gis nañu ko ku nekk am nga ci xalaat deseel deseelatuma leen dara maintenant ci sunu biir la mën na waxante lii ñu defoon def nii bu ñu ko defoon nii mooy gën tout ça c'est possible pour ñi nga xam ne dañuy ñëw après man président bii ñëw wala président yii ñëw ñu mën a profiter ci loolu éviter peut-être su fekkente ni dama def erreur ñu fexe ba loolu erreur boobu la dootul am ma ni rek su yàlla defoon jox ñu majorité ci assemblée bi ba nga xamee ni ba nga xam ne gouvernement bi ñoo koy contrôlé pouvoir bi ñoo ko yor damaa bëggoon ki nga xam ni mooy président de la tey muy Macky Sall ak ki koy nekk en deux mille ma xamal leen ni rek man d'accord naa am naa volonté pour jàppale leen pour dimbale leen dimbale Sénégal même buy jaar ci ñoom parce am na liggéey yu ma liggéey dégg naa Sénégal yi kontaan nañu ci waaye am na lu des bind naa ci benn téere sax boo xam ni dama cee def lii bokkoon na ci sama sama yitte waaye jotuma ko liggéey jotu yeneen ñu jotuma ko yeggale kon nag président bu ñëw li baax ci réew moo di loo fekk ñu di ko liggéey ci lu baax nga yeggale ko man na ku yeggale sama projet ñi nga xam ne ne dañuy présenté contre suñu liste daal di ñuy lii moom amul morom parce que da ngaa xiif nga ba xiif nga fexe ba bañ a yàqamti pour que su liggéey nga seet ko bu baax seet ni muy profité Sénégal ni muy profité Afrique ni mu gënee profité Afrique ma xamal samay militant samay soppe samay àndandoo que liste bi nga xam ne moom laa jiite di ko woote mooy wallu ma di leen ñaan nag yéen ñëpp ngeen mobiliser dem woote ji wollu ak Yewwi ñaari parti yooyu dañoo ànd nekk benn kon nag ngeen